asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 fu Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar na leen way leen di topp Fall wal fu Sénégal li xew ci bis bi rek li xew ci bis bi saa su nekk rek ñu leen koy indil fii ci site bi Fall 94 Walf Sénégal voilà di jë xësa di jaxasaan nag gars yi xam nañ ko ay continent moom gars yi dañ koy topp voilà jigéen ñi voilà ak góor ñi voilà moom nag soppee jigéen ñi la waa gis ngeen ko noonu sama technicien indi na ko voilà mu nekk koo xam ne ni ci organe de presse bi la nekkoon di 2STV voilà gis nañ ne nag moom dafa mel ni euh, moog 2STV jeex na loolu laa gis waaye nag di jaxasaa te ngaa ñëw fii yow de sawaay foo dem say continent baax na de macha allah di jaxasaa daal mi ngi noonu kan euh, yaakaar naa ni euh, de 2STV daal dafa mel ni voilà dafa jeex ndax euh, di jaxasaa dafa mel ni daal posté na ay ay ay ay ay kéem ci Instagram ak yooyu moom nag fan su gars yi la waaw di jaxasaa moom ku ko yàgg a topp xam ni moom jigéen ñi ñëpp soxla nañ ko waaw moom fu muy nekk moom yaakaar naa ni moom gars yi danañ fa dem parce que nag day koo xam dafa ñëw rek voilà jël méttitu boppam quoi voilà. daal di augmenté xam nga voilà fu mu nekk daal daal yaa ma gën a xam gars yi dañ koy topp kon nag wax dëgg yàlla mi ngi noonu àdduna noon la ànd ak tàqalikoo moo fi nekk voilà gars yi nag kenn moomu leen wax dëgg yàlla fi ne dañoo toll ci monde boo xam ne nii ah voilà mu ngi noonu daal xam naa lépp lañ mën a wax ci écran bi nii voilà daal mi ngi noonu di jaxasaakan mi ngi noonu xam ngeen ko xàmmee ngeen ko bu baax a baax a baax a baax ci organe de presse bii di 2 bi yi voilà euh, bu ko defee tamit euh, ñu ñëw tuuti rek ci Malick Gakou Malick Gakou technicien bi ñëwoon voilà Malick Gakou ngi noonu xalaa Mandir Badiane xalaa xalaa doo fi jaar moom lañ ko def voilà yaakaar naa ni nag fi mu toll nii Ousmane Sonko mi bëgg a bari ay morom ah voilà c'est nag li problème bi mooy Sénégal ñoo ko bokk voilà yéen nag ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ay wootee woo ni yéen ay opposition bi da ngeen war a gën a mën a jàppoo a taxaw bu ah, ci. waaye daal fi mu toll nii ni ma ko gisee xalaa ma ndiir bàjjen bii xalaa xalaa doo fi jaar gars yi moom fu ngeen toll ne ñu du fii ah loolu da wax dëgg day bëgg a metti nag Sénégal dañoo ko bokk moom dañoo war a bokk nday bokk baay di xàccandoo di dóorandoo Ousmane Sonko de bañ ko koy def daa mel ne ñu baree ngi fi woon voilà yow nag Malick Gakou gars yi xam nañ la moom wax dëgg yàlla ci sa taxawaay voilà si réew ñoo ko bokk nañu xool rek nañu organiser woo voilà su ko defee 2024 gi ñëw voilà ki la maire gañ gars yi moom yaakaar naa ne fi mu toll ñi nga xam ñooy wote yaakaar naa ne ah, ñu ngi toog rek di xaar de 2024 yàkkamti ko lool nag mu ñëw ba ñu sànni seeni carte voilà beneen bi ci des tamit euh, moo di voilà hmm, voilà euh, yaakaar naa ni daal loolu lañ fi indi woon tey euh, mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla moom lañ fi indiwoon voilà xanaa di leen wax rek ngeen wéy di ànd ak ñun saa su nekk di euh, abone di partager di sem di commentaire euh, su ko defee rek voilà euh, ngeen xam ni site bi moom seen site la voilà kon daal yaakaar naa ni lii nekkoon na li nga xam ne tey jii moom lañ leen doon indil ci li xew ci bis bi xanaa si li nga xam ne ni moo di rek mbëkk mi mbëkk mi moom chaque jour saa su nekk rek voilà dañ may wax ni maanaam dee dee dee dee dee ñu ci indil ay information parce que dañ lay topp saa su nekk te dañ lay déglu voilà man daal li ma ci mën a xam mooy euh, mbëkk mi moom ñëpp a koy def sénégalais yi tamit ñu ngi koy def ñu dem ci dëkk boobu noonu di Nicaragua euh, di jaar Mexique di dem États-Unis Amérique mais nag euh, dem naa États-Unis yaa ngi ci camp bi ci camp lañ lay lijjantil sa lépp voilà fa ngay amee avocat foofu nga maanaam daal fa la lépp di xewee nga door a mën a génn wala ñu retourné la rek voilà mara de taal ndax 5 millions 4 millions dafa bari ku ko fere dem ba foofu noonu ñu dëppaat la ah loolu moom ak ndox sax xañ na ci. voilà kon daal ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen jaajëf bu baax way leen di abonné di partager di sem di commentaire.